asalaamaaleykum wa rahmatullah téléspectateur u Equivox TV maa ngi leen di bëgg di leen ziar fii ma taxaw nag defe naa bu ngeen ko gisee ku mën a ku mën a liir xam ne lii Fatick la maanaam région de Fatick kon maa nga tey ma maa ngi biir Fatick tey Fatick nag buñ ko waxee ah wax dëgg yàlla ñu fee dugg te ñu kenn ki nga xam ne moom la yàlla dogal mu ne ci bopp réew mi muy le président Macky Sall son excellence le le père de la nation ah noonu la demee président Macky Sall ñu ngi koy nuyu ndax nag yàlla dogal na nekk na maire fii ba xëy tey nekk njiital réew mi waaye tamit du mën a ñàkk ñu nuyu ki nga xam ne moom moo yore sportu réew mi muy ministre Matar Ba yore ministre de sports ñu ngi koy nuyu di ko ziar ana Cheikh Kanté doomi Fatick la kon su ma ko doon lim ndax dinaa fi jóge Fatick waa yëpp maa ngi leen di nuyu di nuyu doom ja Kéba Kanté képp kuy doomu Fatick rek Babacar a ngi lay bëgge di la jaar yaa ngi dégg Sitor nduur sax waaw jamonooy waat ñoom ñëpp Fatick lañ dëkkaa c'est des Fatick waa c'est Fatick li ñu fee nag tey lenn kese la maanaam dañu dégg coow fan yi ci làmb ci benn dat boo xam ne mooy le 16 mais di dimanche après bu ñu korité dat boo xam ne maanaam fii la war a amee muy datub làmb date bi nag li ci di coow li mooy ba tax ñu gëstu si ko mooy maanaam Jamaïcain mi ngeen xam mu jiite jam production ak Jax mi ngeen xam mu jiite Jax production ñoom ñaar ku ci ne nee nga da ngay tëgg le 16 mai fii di Fatick bi ngay tëgg ñoom ñoo bokk lu ñu teg ku ne 3 millions nga teg ñoo bokk bu buñ ko tudde muy Matar Ba bokk stade buñ ko war a defee muy stade Fatick bi loolu nag ndax man naa ne ah wala mënta ne man nag lu leer laa ci bëgg moo tax tey ma ñëw waaw léegi nag dañuy. dugg ci biir dëkk bi laajte waa dëkk bi wala boog laajte ñu yor làmb ji fii ba xam ñoom ñaar kan moo ci moom date bi waaye man li ma leen di wax daal lenn rek la ñoom ñaari promoteurs yi di ko wax promoteurs yëpp nañu xam ne ñoom ñoo bokk ndey ñoo bokk baay kenn ku ci ne pour man li rafet ci yow bu sa moroom nekkee ci mbir nga jàppale ko promoteur yëpp nag laay adressé lii wala sax sénégalais yëpp maanaam nanu jàppalante te bañ a yàqalante bu fekkee ne nit ki dafa la daf la jiitu ci dara jàppale ko mu réussir ko yow bu sa bés ñëwee mu mën laa jàppale Sénégal jëm kanam waaye nag comme loolu amagul wala loolu leeragul lépp dina leer fii ci Equivox TV ndax dem waxoon naa leen ko xam ngeen dem gis ngeen ma ca tooli soble ci diggante Tassat ak Ngunjaan ah tey gis ngeen ma fii biir Fatick loolu la wan ne Equivox moom moom lépp luy xibaar day leer waaye daal dinañ xam drapeau Matar Ba bi moom kan mooy tëgg dimanche bu nu korité bu soobee yàlla jam yay tëgg. wala jax yaay tëgg dana leer jàmm yàggamaar lii dina leer waaye yàggamaar nag laa àndal cameraman bu mag bi taalibi Seex Béthio Thioune Serigne kenn du moom ci wàllum film image yàgg ma ci doy montage waxi noppi kon yàgg xam nu ñuy def dañ naan jaw dugg biir Fatick rek entrée xooli waa CRC bi ak stade ba du mën a ñàkk. comme ni ma leen ko waxee woon sànq rek defe naa présenté woon na bi may dugg ci dëkk bi te Fatick defe naa ne. mënoo wax làmb Sénégal génn ci région de Fatick loolu moom yàlla dogal na ko ndax li ko waral mooy champion yi fi dëkk yaa ngi dégg ci côté mbër gi ak ci côté bu mu ta doon sans contre rek suñu yaay maye ndep ngom ñu koy nuyu di ko ziar ndax defe naa su ma jumul quartier bii ñu nekk nii soriwu fi Njaay Njaay Fatick ah voilà danañ ma këram a ngi nii xam naa ma pare si naa ko nuyu ji yàgg maar parce que tamit ku dugg ci dëkk bi mu mel ni Fatick di waxtaane làmb fekk fa maye ndep faw nuyu ko waaye tey nag euh, damay nuyu suñu papa ji rek le président du CRC de Fatick ah Sambare maa ngi lay nuyu papa. Euh, maa ngi lay fay euh, maa ngi leen di sant ci ñëw bi ngeen ñëw pour situation bi mun a leer parce que coow li bari na te wax dëgg coow li bari na te wax dëgg euh, ni mu demee lu leer la woon Jams Production moo njëkk a demandé date ma jox ko ko. Euh, erreur nag moo am ba ki ñuy wax Aline Diop ñu gën koo xam ci turi Pape Ndangaan euh, jërbaat la ci man it ñëw fi ne ma ñoo ko yónni autorisation bi. ma ne la kan moo ko yónni. non dama ko ñëw ne ma autorisation bi laa wuti ma ne ko lamb bii tegle le 16 mu ne ma waaw ma ko Jams production mu ne ma waaw waaw. te fekk boobu Jams yónni wu ko. ah Jams production la ma wax de man xaw ma Jams xaw ma Jaks Jams daal laa xam. daal Jams nga xam Jams laa xam. parce que moom laa jox date waaw dama am euh, registre bu mag soo demande date damay bind sa tour production ba pare bindal la date bi keneen su ñëwee ma la déedéet date boobu jël nañ ko waaw biñ ma njëkkee téléphone dama leen ne date bi joxe nañ ko mais Pape Nangaan dama leen ci CRG bi la bokkoon sama jër baat la bi mu ñëwee aussi wax ma loolu ma bindal ko Jams production Jam production Jamaïque production moom laa ko bindal mais nag dama ko ne ku koy représenté mu ne ma man. Mm. ma bind turam parce que soo ñëwee dañ leen naan lan ngay représenté nga joxe sa carte ñu bindi sa tur bindal la li ngay représenté donc Jams Production la représenté la wax waaw mais moom amul dat yéen nag ñëw ngeen fi tey régularise nañ affaire bi waxtaan nañ ko jub na ñi ko war a aussi dégg nañ ko même ministère. kan moo ko régularisé lamb bi da ngeen ko régularisé yéen. waaw. yéen ak promoteur bi. promoteur ba. promoteur bi dafay ne. promoteur bi di dama ko téléphoné ne leen amu leen date jam su moo fiy tëgg ma ne ndax est-ce que ngeen kayit bi Pape Ndanga ne ma effectivement seeti nañ ko jam production lañ ciy def ma ne kon nag xam ngeen ne amu leen date. kon daal su ma léegi maanaam Jax kon datu la 16 boobu ñu doon wax ne da cee war a tëgg fii Fatick kon mënta nekk pour ci côté. mënta nekk Jax mu mënul tëgg Fatick. mënul ko tëgg ci le 16 boobu. 16 boobu su buggee date na dellusiwaat wut date mais 16 bi moom mun mënu cee tëgg. chaise bi Jamaïque rek moo fi mën a tëgg waaw parce que stade ci boppam euh, bi biñ ko joxee autorisation bi Jamaïque lay autorisé donc Jax mën a fi teg en aucun ka waaw. loolu Jamaïcain moom moom datu le 16 loolu leer na nañ. moom datu le 16 loolu leer na nañ keneen du fi teg. Jamaïcain da da est-ce que euh, gëj ngeen déggante wala ñëw na fi wala nangam kañ la fi mujjee ñëw wala wala. parce que dama dégg sax ñu ne xaw ma mu ngi fi xaw ma est-ce que ngi fi wala déet wala kañ la fi gëj. Jamaïcain Euh, mënuñu def trois jours yu ñu déggantewul chaque trois jours def ma doon téléphoné ñuy waxtaan ci situation bi mu ne woon ma daa voyagé Gambie mais su ñëwee rek dina ñëw Fatick effectivement ñëw na tey. ñëw na tey Fatick. waaw ñëw na tey Fatick ba régularisé nañ lépp. Hmm. waaw. Jamaïcain moom moo ñu fi jiitu. moo leen fi jiitu ñëw na ba defaral laa ko lépp. léppam ba léppam mot na. amul dara loo xam ne si dee ci autorisation bi ci demande bi yooyu yëpp sotti na. waaw kon Jamaïcain ñëw na fi ci suba defaral naa ko lépp. Jax tamit daa mel ni am na ay kayit yuñ ko jox yéen da ngeen a def erreur foofu joxe ñaari kayit wala lu tax. Euh, kayit bi Jams production moo fa nekk Jamaïque production moo ne ci en tête ba parce que soo ñëwee damay naan yow kan nga représenté nga ne ma par exemple Jam production la représenté may la jox ma sa carte d'identité nga génne sa carte d'identité ma bind sa tur bi bi Pape na nga ñëwee Alioune bi mu ñëwee def maa fekk dispensaire may def visite mu ñëw ne ma lamb ji moo ma indi ma ne ko ban lamb mu ne ma lamb le bi bi mu waxee loolu ma ne ko waaw le 16 de jam production moo fiy tëgg kon andi sa carte d'identité mu jox ma carte d'identité ma def defuma ma jax de jam production la fa def waaw parce que gis nga euh, kayit ba jam production moo fa nekk représenté par Aline Diop waaw bindi lima bindi bind jox ko ko bi ma kii wooyee sax damaa jaaxle parce que def maa woo ma ne ko det yow kay yónni si woon nga fi Alioune Diop ba naa ko mu ne yónni wu ma ko kooku Jax production lay doxal fa laa door a xam ne Jax production lay doxal ma ne ko ah noonu la ma ma ne ko may ma trois minutes ma woo leen après dinaa la rappeler ma woo leen ne leen amu leen date de gis ngeen seen lefin bi tu ma ne ko jam production moo fi nekk xaw ma woon sax Jamaïque la mais jam production ma ne moom laa bindi moo fa nekk. gis ngeen ko mu ne waaw gis nañ ko mais ci ngoon lañ koy door a seetlu ma ne ko nag xam ngeen ne amu leen dat du ngeen fi tëgg waaw su ngeen ñëwee aussi du ngeen tëgg bokku leen parce que dat bi kenn na ko moom waaw ñu ne ma waaw kon baax na ma toogaat ba mu yàgg kii woowaat ma ma ne ko waxtaan nak ñoom de toute façon nee naa leen amu leen date ñu ne ma am na benn kayit bu ñëw bu ci ministère ba may gërëm aussi ministère ba parce que biñ ko jotee dañ maa woo ne ma ñun de dañoo jaaxle parce que dañ fi am ñaari benn date ñaari promoteur ma ne ko deet benn date ñaari promoteur te mais amul Fatick de benn promoteur moo fi am muy ki nga xam ne moo yor sport au ministère ñi di ko wax fi Ndiaye waaw moo yor sport au ministère Matar Ba ma ne ko det benn date a fi am jam production la mu ne tonton loolu rek laa bëggoon xam waaw mu ne ma kon baax na kon kale amul date ma ne amul date su ñëwee ci yéen di wax leneen te mais amul date de te du teg Fatick mu ne ma kon baax na loolu rek lañ bëggoon a. maar comme Jamaïcain mu ngi ci biir dëkk bi dama koy woo téléphone bu fekkee jot naa ko bu dee génnagul mu xaar ma xaw ma fu ma koy fekk ci biir Fatick mais dina ma xaar xaraa ma laaj ko moom tamit ci coow li am waaye ñun moom liñ ci jublu rek mooy lu leer parce que dañoo bëgg lu parce que tamit li ñu yore communication lay joxe maanaam nit ñi pour ñu xam li xew kii li mu wax leer na ñi kon defe naa date bi le 16 pour jam la sama téléphone bi defe naa numéro jamay kenn. jàmm maa lay ziar. si loo yaa ngi si jàmm. man dama xëyoon ñëw Fatick. doon seet si président CRC bi. déggoon fi coow sa diggante ak Jax ci ay wax ci werante ci date quoi le 16 léegi nag ñëw naa man gis naa ki nga xam ne moom moo jiite fatik muy Sambare jonn Sambare joom la sax waaye bañ na waaye loo ci mën a dégg daal gis naa ko nee na ma daal date bi leer na yow yaa moom date bi mu ne ma nag yaa ngi fi jóge ci suba ba ba ba mu régulariser la ba yaa nga dem nga Dakar dama xamul nag yaa ngi dem euh, génn nga fatik wala yaa ngi Fatick bu fekkee ne yaa ngi nga wax ma ñu daje nga xaar ma yaa ngi ci bi stade bi ñu war ok stade u man maa ngi ci kër président bi non déedéet man jam xam nga tamit c'est ay wax bu jógee te yéen ñëpp ngeen di ay promoteur di développer lamba muy yow muy Jax muy Fallou Ndiaye Assane sëñ Modou ñaa Gaston Mbengue ak Luc Nicolaï ba ca waa Vox Arena yéen ñëpp làmb ngeen fi nekkal pour lu doxal làmb moo tax bu erreur naree am nar a indi ay jafe-jafe ay werante man tamit ma leeral ko pour mu leer ku ci nekk xam fi ngay toogee parce que yéen ñëpp benn ngeen yen a bokk nda yéen a bokk bàyyi kon benn date waru leena a boole mais topp du question topp la dama dama bëggoon lu leer rek te Vox Arena lamb rek ko yëkkatee ak Equivox. voilà kon xaar ma ci stade bi maa ngi ñëw am na solo jaajëf kon yàgg maar noonu la demee leer na gaa yi dégg ngeen kon jam moom itam damay dem jëli ko mu wax waaye tamit du tere su ma fi jógee jàk si tamit dinaa dem ci ndax moom ndax olof na wenn lay pàq la moom itam fi mu sukkandiku woon ba yor kayitam ba ne dafa am date pour le 16 fi nga xam ne moom mooy fi nga xam ne moom moo di fii Fatick parce que jàk si encore une fois rek liñ wax li ñuy wax rek olof ne na waxal la guddi noppam ak mën a dawam du dara moo war a am parce que boo ko deful mën naa nekk soxor jax ak lu mën a xew lamb simple yokku na ko. mu mel ni kon mbokk yi dama leen ko waxee Kër Sambare laa jóge jaar ci stade bi fekk fi Jamaïcain gis ngeen image yooyu fekk ko mu toog nii moom ak Mor waa Jam production ci combat bi nga xam ne wala boog tournoi bi ñu fi war a tëgg dimanche 16 mai fii ci stade municipal bu Fatick drapeau monsieur le ministre Matar Ba léegi nag dañ koy laaj ñu leeral ndax ñoom léegi nag liñ fi doon dox leer na. nañ ba ñoom ñooy tëgg wala kuy tëgg moo maa ngi lay ziar. waaw Babacar ñu ngi lay nuyu waaw di nuyu site bi muy Equivox TV waaw di rafetlu bu baax seen liggéey parce que tamit eh, ni ngeen koy doxalee am na solo daal waaw. waaw parce que mbir mi de ñun moom xam nga comme dañoo dégg ay wax te wax ji amuñu ci lu ñu leer te fi ñu ci mën a amee lu leer mooy Fatick moo tax ñu xëyoon fajar teel sol suñu daal ñëw Fatick. waa Babacar mën naa ne mbir mi jar na wax jarul wax ndax ah, daanaka soo yoree lu leer rek jarul détail di bari te ñun li ñu yor dafa leer mu le 16 mai. ñu waroon ñu ñëw tey jii Fatick doon finaliser CRG bi doon finaliser tamit stade bi parce que tamit euh, si événement bu rëy leen jëm muy le 16 mai adduna di ko waajal sénégalais di ko waajal kon nag amuñu droit sax des fois di lijjanti ay détails diw moomam dal di wala diw moomu ko parce que tamit ñun liñ yor defar leer te tamit xam nañ si luñ jëm moo taxoon tey jii ñu doon ñëw pour finaliser lépp ñëw tamit si stade bi defaale visite stade bi xool programme bi la war a dérouler ndaka la ñuy def pour mu nekk événement bu rëy. bokk na si personne yi ci gën a active macha allah waaw ñuy nuyu waa Jam Production yëpp rawatina ñoom Paate Gambia maa ngi koy bëggee depuis Gambie ak di nuyu ki nga xam ne ni moom mooy sama waaje ca Fass Coy euh, sama xarit ba ah si soxo waaw saa fa si soxo borom. séri Fatima Fatima borom maafe yu neexee ca Njaga Coy ca loolu du ma ko fàtteeti ci àddina jam ah, ne nga la doon topp wala dañ maa yónni waaye man kenn yónniwu ma man sama liggéey rek laay def pour nga bañ maa dugal ci say problème man néew ma ci ay problème man aw ma kenn jafe-jafe maa ngi lay bégg. maa ngi lay delloo ziar di la béggee di la nuyu bu la xooloo yow sama waay nga. ah non bon parce que yow dama dama la woo téléphone ma maa ma woo la pour bëgg a xam foo ne pour mu leer senegal yi xam nga ne maa ngi Fatick mais pourquoi nga ciy teg dañ maa dañ laa yebal ku may yebal. ah man damaa a Fatick dina nga woo ma ne yaa ngi Fatick. waaw non moo tax man la quand est ce wuñ la ci man. kan moo may yónni man may liggéey si lamb. ah xam nga lamb dafa bëri ay pexe daf tee bari man day pexe pexe fa la ma pexe yi bàyyi parce que man fexeelu ma kenn man ci lu leer nañ man promoteur yëpp laa fi nekkal. wax ne maa ngi Fatick loo non man man man man coow laa dégg dama dégg ay détails fan yi ci journaux yi wenante bi groupe whatsapp yi kii day tëgg kaa day tëgg dara même drapeau même parrain kat tëggkat même kat bu coow li bëri nag te ñoom ñi yor làmb ji fii Sambara yor ko ma ne kon bu ma xëyee man naa dem Fatick laaj ko moom ba xam loolu la de waaye topp ma la de. waaw loolu moom la ñu rafetlu sama waay nga dama lay tooñ rek ah, bi nga ne ma yaa ngi Fatick sax gëw ma woon ne yaa ngi fi waaye comme ni nga waxee man ma tax ma ne la kanaa dañ lay yónni nga may topp sama xarit nga maa ngi lay nuyu bu baax di wax ne li nga def nii dafa am solo waaw yéen ñu ñi dañ leen yaakaar di leen di ci làmb kon bu làmb amee yenn conflit day jot pour ngeen dugg dox dox si ay jéego xam nga xam mbir mi nan la demee ak nan la taajoo waaw di jéggalu nag ñëpp. mbir mi nu mu demee. waaw ni mu demee mooy ñun ay jeunes lañ nekk ci làmb bi ñu ñëwee ci lamb ba léegi waxuñ ne ñoo fi gën a professionnel waaye bokk nañ ci ñu gën a professionnel ci làmb ndax lépp lu ñu mës a wax amateur yi amuñ ci jiixi jaax daaw tëggoon nañu bokk mujjoon nañu tëgg làmbu le 8 mars ñu teg ci deux semaines ñu arrêté activité yi ñu amaat suñuy combat amuñu date mhm. bi saison bi tijjee mhm. ñu gis ne date yëpp ñu tëggoon daaw suñu jëlee seen date ba pare ñun duñ teel a tëgg mhm. ñu ne leen dañ teg benn stratégie ñëpp xam nañ ne jam production bi mu ñëwee ci làmb ba léegi xale la wala waaye terewul moom day décentralisé jël làmb yóbbu ko ndar gis ngeen Gambie bi jamono bi fi ñu jël ay làmb di yóbbu Gambie ba am na ñeneen ñu fi jógee ñëw doon tëgg Gambie kon loolu yëpp si décentralisé la bokk ñu te di xalaat ñu ne lak benn solution lañ mën a def ren ñun nañ teel a pare raison yi raison bu nekk ñu jëm fa am date su gars yi nekkee ñu nga xam ne tëggoon nañu daw seen événement yi su ñu nekkee di tëgg Dakar ñun ñu mën a génn dem ci ren depuis mois de mars nag lañ dox ñëw fii mois de mars laa la wax ñu ñëw fii ooden ñu wax ñu fi ñu war a jaar yëpp ndax làmb boo koy tëgg ñi nga xam ne ñoom la yàlla def ñu teg leen fi da leen di jox cër bu ñu moom bu fekkee CNC la jaar CNC ñooy joxe date bu fekkee CRC la nga jaar CRC ñu woo CRC bi gëstu ñun ban date may leen bëgg naa buñ korité ba pare le 16 mai maa xool sama calendrier woo leen ñu xamal ma ne ma date boobu libre na kenn jëlu ko ma jël ko yemuma ma sax di jël ko si téléphone def lu ma war a def xam nañ ne dëkk bu nekk dafa am ay normes yu ñu doxee mu bind bind CRC bi bind préfet bind maire bi nga xam ne nii tey ah ki ma ko am yéene di ko tudd ku ma koy tuddee muy Matar Ba mooy maire Fatick waaye terewul dama leen bind bu ci nekk lettre yi maa ngi ko bind le 2 le 2 avril le yaakaar naa képp kuy promoteur nekkoon Dakar sa xel nekkul pour nga génn jëm ci raison yi lettre bi maa ngi ko dugal ñoom ñu ngi ci jot fii le 6 avril ñoom ñëpp même lettre yi lañ jotandoo le 6 avril bu ñu ci jotee stade bi tontu ma confirmel ma ne man la 16 bi jox nañ la avis favorable CRC bi continuer ma toog grande surprise ma toog dernière semaine bii di ñu génn diggante la ci mois de mai bii bi mu teroo ma commencé di gis yeneen affiche mu jaaxal ma trop ndax yeneen affiche yooyu ñu koy def ñoo ñoom ñoo bokk benn kuréel bu ñu nekk te amul ku mun a taxaw ne ñoom gisuñu un mois ci gannaaw may defar suma affiche di ko dugal wala journal bi bind suñu làmb amul ku lu liir ñëpp bu fekkee dañ ne ñu ñëpp benn lañ luy rafet la ñu walla a xool luy defar làmb jam production dañ professionnel lépp lu ñuy def dañ koy teg ci yoon ñu askan wi wala yabuñu amateur yi wala yabuñu sax ministre des sports nga xam ne ministre de la république la ñuy ñëw naan ko tuddee nañ la làmb di def ay affiche am di publicité loo xam ne teguwuñ ci dara yabeewuñ noonu askan wi bu ñu demee nag ba xam ne ñun toog ci lu leer lañ toog li ñu nekk ñu ngi ci jëru ñuy njëkkante jëru ñu yooxu jëru ñu xëccoo kenn du ñu dégg li olof yi di wax rek dañ naan ñett ngi ni koy def doo si jëlee ndam man yokk naa si juróom juróom yafal màgget roose mbopp xuuxal jàmbaar bëgg loo mënta jot tooñ ko la man ku koy def doo si jëlee ndam. est-ce que yooyu waaw yooyu la yooyu gis nañ ko ci. da ngaa bëggoon sa morom bëgg rek. non non non mais jam yooyu ay xuuxal ak jafal ak yooyu jaru ko yow daal loo ci mën a dégg ki bëgg sénégalais la yow sénégalais nga yow comme ni nga ko waxee bu dee doon la demee yaa njëkk a demandé jox nañ la ci ay normo defe naa passé ko continué waajal sa journée est ce que du gën a yéenu maanaa lu dul sànnante tarak. noo du sànnante tarak àdduna àdduna lépp lu ñëw. dañ ci war a def njàngat pour ëllëg. làmb ji dañ ko war a defar. lamb dafa dépassé fu ñuy def dugg ci yenn détails yi. est-ce que defar ko li koy defar dina doon ci ay sànnante ay kaddu ay traak. non non du sànnante ay traak. lamb ñun ay ndaw lañ Babacar ñun dañoo war a wàcce raay bi juum ñu corrigé ñu ñu nangu ba su fekkee mag ñi nga xam ne ñun ñoom lañ fi fekk ñoom ñoo koy def ñun ñun ban taxawaay lañ war a am. lambu laajul lii lambu dafa laaj lu ñu war a defar lambu foofu la toll ci niveau boobu la toll yaa ngi dégg man amul benn promoteur boo xam ne dinaa yëg ne yaa ngi ci lii may ñëw di ko jéem a xajamal wala ñëw di xëccoog yow. est parce que yéen a ne ci làmb ji yéen a tëgg yéen a bokk kuréel yéen a bokk groupe whatsapp pourquoi pas yu mel noonu mën am seen biir tamit. voilà nag ma ci gën a déranger su fekkoon ne koo xam ne leer ne ñii samay adversaire lañ damay wax ne ngoo la xaw ma nañ ko waxee lu golo xam bootee doomam waa ñoo xam ne yow yéen a bokk benn kuréel yaa ngi dégg bokk di dajee di def lépp kenn si ñoom nga war a nekk ci lu mel noonu loolu di ci am loolu mooy ñaawlu la lu may rafetlu rafetlu ma ko wax dëgg yàlla kon acte bi ni mu amee rafetlu ma ko ba pare nit di jog di ñëw di jóg ci tur nit te kooku yónniwu la loolu am lu ci am dafa garaaw te loolu nañ koy moytu nit ñëw na ba Fatick fii na jam production moo ma yónni CRC bi jox ko abi favorable kayit ci sama tur yaa ngi dégg jam production mu dem te bàyyiwul xel na ci jam production la ko def après yooyu yëpp ñu changé ko dem toog ak man rus naa dem toog ak kilifa di ko wax loo xam ne man nekkul na maa am date dem nañ ba ne man ñoom ñoo am date bi la CES si stade bi ci CRC bi ma ñëw ko ci stade bi man ma jot boobu man balaa maa ñëw stade stade bi ma fi ñëw dama fi indiwaale avis favorable CNC ndax directeur stade sax boo ko daan la demal CNC ba pare CNC ñoo lay jox accord ñoom ñu door a jox stade kon man nan laay amee stade te aw ma CNC léegi liñ eh, eh, coup biñ tànte ci CRC bi ba réussir ko moom lañ ñëw ci directeur stade bi réussiruñ ko ndax biñ ko defee ci directeur stade bi directeur stade bi dafa fekkoon yónnee na ma affaire bi par mail biñ ne ko yónnee ñu suñu lettre bi directeur bi na ko yónnee naa leen ko lettre bu ma leen yónnee boo xam leen lépp lan laa lan laa leen si yónnee ñu ne ko daf ñu réer directeur bi jël ko yónnee ñu ko jour bi leen ko directeur bi yónnee si la coow am ma woo ko mu ne ma yónnee naa ko dem waaye même suñ ko changé fii li nekk fii ci taxi sa tur moo ci nekk demal nga def sa liggéey. kon daal léegi kon léegi jàmm le 16 yaa ciy tëgg loolu leer na. waaw le moom maa ciy tëgg ndax yow jóge nga ci CRC bi xaw ma loo fa jële waaw man moom waxtaan na ak moom moom ne na yow yaa fiy tëgg loolu la Sambare Ndour wax Sambare jonn du moins maa ngi naan Sambare Ndour sax jonn moom loolu la wax ne ne yow yaay tëgg yow euh, a tëgg làmb loolu moom moom moo ko wax ci Equivox TV fii ci micro bi la ko wax. waaw loolu kon leer na comme moom moo la wax loolu tam mooy président CRC bi fi ma fekk nii tamit si stade bi gaa directeur bi buuse na waaye dinaa ko yow journaliste nga def sa liggéey pour askan wi ñu ngi. directeur ban ngay woo bi. jam jar nay woote. non non fii pour na lamp yi tàkk rek na lépp leer nañ. <laughs> daali lamp kay ñu ngi bëccëg ngay. taali non non yow CRC jox na la ñëw nga stade bi fekk naa la fi nga visite nee nañ la jox nañ la stade bi ministre bi sa sa par eh, jam daal. kon kay yaa koy def mel ni man kay mënu def ko kon waaw ba bàyyi ko man ka dama déggagut mu wax sax allo. gi maa ngi lay ziar. la. Youssou Samb xanaa yow Joola nga ah kon yow mbokku séeréer nga yow yaay directeur stade du Fatick bi waaw man maay directeur stade Massène Sène bu Fatick. déjà parce que ñun li ñu fee woon ci suba en tant que ay yu gëstu dañu déggoon benn coow détail bu am ci ñaari promoteur ci date même dat ci mem stade bi muy le 16 mai ci entre Jacks ak Jamaïcain léegi yéen ci CRC moom ci la ñu jëlee ci Sambare mooy que ni Jamaïcain moom moom date boobu moo ciy tëgg yéen nag yéen a yor stade bi est-ce que confirmé ngeen Jamaïcain datu le 16 bi. waaw man de la date du 16 euh, mai. muy euh, muy euh, demande boo xam ne. Mhm. Jamaïcain moo ko bindoon maanaam ku ku ñuy wax Madiou Madiou Niass Guèye. Madiou Niass Guèye feeñal nga ko de looloo diw turam de te réew mi xamuñu ko. Madiou Niass Guèye. moo ko bindoon ah moo ko bindoon le 6 euh, avril. ok ci la ma bindoon lettre ne moom dafa bëgg dëgg euh, lamb si bi ci stade. ok mooy licençat. Euh, bi mu mhm. ko bindee. Mhm. date bi ñu saytu ko suñ ko saytoo waxtaan ci ak ñi nga xam ne ñoom ñoo yor programmation mhm. bu football. boo xam ndax date boobu noonu amul match football bi ci am parce comme que lamb la te stade bi dafa fekkoon championnat bi tëlu woon na. moom bañ mu am jeexi jaaxa sax. ñu laajte ba te leerlu ba daf boobu ñu gis que ne boobu noonu ci boobu noonu baax na ba pare doog a bind lettre nag daal di koy tontu hmm. ne ko baax na ne ko léegi mën nga commencé def tey formation administrative mooy jógee autorité yi nga xam ne ñoom ñooy def autorisation yeeg waa DRG hmm. yeeg pour que leen mën a date boobu noonu ngeen mën ko confirmer mais mais moom hmm. amul keneen koo xam ne jot nañu demande am ku laaj date boobu noonu ok kon loolu leer na kon Jamaïcain moom moom date boobu mais moom moo ñu nañ ko jox ko suñu accord. daal le 16 mai date bi moom moo ko moom moom ngeen jox stade bi en tant que kilifaay stade bi. ñun moom lañ euh, euh, autorisation yi euh, na solo kontaan nañ ci yow. leer na leen le 6 avril laa dégg naa li ñu wax la leer waaw kontaan kontaan naa monsieur Samb. jaajëf jaajëf kon loolu léegi. c'est pour leeral la xam nga. yëpp sax pour non mu leer pour askan bi xam nga tey buñ ne xëccoo ñaari nit a ngi xëccoo ñaari promoteur <laughs> boo ne Jamaïcain di nga tudd keneen te Jamaïcain xëccoowut ndax nan ngay annoncer lamb boo xam ne la 16 nga ko war a tëgg yaa ngi si ban date tey le 8 8 jours moo la dese ba tey jii dugaloo demande si stade nan ngay tëggee loolu sabotage ah am na loo xam ne guddal mbayum noor la te du ko jar yaa ko fi wax léegi am na loo xam ne jar li leer mooy yow jot nga ci stade bi. jot nga CRC bi confirmé na la la kii yaay tëgg lan moo waral drapeau Matar Ba. ñun ay ndaw lañ. nekk ci réew mi. di liggéey di liggéey ci làmb làmb nekk sport. Mhm. ren lambu ji am na mu demee Dakar saturé ñun ñu fas yéene décentraliser. dem ci raison yi. ñaata raison nga fas yéene tëgg. ah pour le moment fii kale naa fi Fatick le 16 Kaolack pour mu leeraat le 6 juin. le 6 juin à naa ko fa bu yàgg balaa keneen di dem foofu di jëm a xëccoo yaat ay dat Fatick Fatick tamit kale naa dat boobu du ma wax. moom maa ngi Fatick non euh, noonu laa koy toppe ba oriental. mu mel ni fan yi tamit li ma lay laaj foofu lay tëjee ak yow sa xarit koo xam ne ay seex sax mën naa ni muy xarañ bu Medina ñu doon ko wax mu du ngoom xarañ bu Medina mu décédé décès nga xam moom mooy ci Arabie Saoudite jam loolu bi nga ko yëgee. waaw Babacar loolu moom soo ma ci laajee sama xol day tooy ndax koo xam ne la maak moom benn lañu woon ndax man yàlla dogal na tey maa ko indi génération xarañ mu dëkkoon Medina maa tax mu jugee Medina ñëw tuxu ci parcelle ñu bokk benn néeg kon te ñëpp xam nañ ne dëkk yooyu soo fa amul taxawu amaana duñ la topp bañ fay la droit yi la war a fay duñ la ko fay man loolu laay ñaan képp ko oo xam ne am borom nomba tànk ci réew mi ba si ministre des affaires étrangères mu taxaw ci Modou Ngom doomu Sénégal la Arabie Saoudite doon liggéey soog boobu dal ko fu mu làkk ci bakkanam ñu taxaw ko ba loo xam ne nii société bi mu noon liggéey war nañ ko ko jox ci dédommagement ñu jox ko ko ndax bakkan kenn mënu ko fay waaye njaboot gi mu fi bàyyi nii lañ toll ay xale yu ndaw lañ. kontaan ci yow. maa ngi bég ci yow tamit di la nuyu. Euh, mbokk yi ñuy ba tey ci Equivox TV rek ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar comme ni ngeen ko xamee tey xëyoon nañ ñëw Fatick jëm ci wàllum nag datu le 16 bi dem nañ ci ki nga xam ne moom mooy Sambare yore CRC euh, bi jiite làmbu Kaolack dem nañ ci stade bi tamit ki nga xam ne moom mooy directeur stade bi donte newu fi mais jot nañ ko promoteur bi tamit yàlla def nañu daje ak moom waaye tamit ci diggante loolu bi mu amee yàlla dafa dogal ñu daje ak ki nga xam ne nii tey moom mooy attaché de cabinet wu Matar Ba ministre des ba pare yore yore tamit lépp lu jëm ci wàllum digital ci wàllum ministère des sports rawatina côté politique tamit mu di ko ci taxawu defe naa fii ci Fatick di benn jeune bu ñuy wax Massène ah maa ngi lay nuy ma waaw maa ngi leen di fay di leen sant di rafetlu seen déplacement bi parce que def ngeen lu am solo parce que da ngeen delloo buum sa mbooy mbooy ga Matar Ba dafa nekk ministère des sports dëkk Fatick Fatick bokk si Sine ñu xam ne Sine histoire am yëpp si côté sport lamb la ngeen jël benn date muy le 16 ngeen tuddee ko ko ñun en tant que cabinet Matar Ba en tant que collaborateur politique ak ay rakam ak ay doomam kontaan nañ si loolu te di leen dalal Fatick Fatick ngeen xam ne dëkku teraanga la. macha allah Fatick dëkku teraanga la loolu moom yàlla dogal na ko mais dafa am benn wax parce que ñun tamit dañu bëgg mbir yi di leer si sénégalais yi jógoon fan yi ci benn datu le 16 mais bii ñu jëm di dimas après Korité incha allah rabi yàlla nañ ko fekk te tal ko maanaam làmb boo xam ne Jamaïcain daf ko tëgg tuddee ko ministre sport sports Matar Ba muy 3 millions ñu dëgg tamit na Jax daf fi tëgg moom tamit même jour boobu tuddee Matar Ba 3 millions coow loolu yéen waa ministère lu ngeen ciy wax yéen ñi nga xam ne tamit lu jiin njaag yéenay njaag ndax yéenay meeru dëkk bi en même temps yéen la ñu tuddee drapeau bi. man defe naa ne ñàkk a wax réeroo amul ñàkk waxtaan rek moo am parce que Matar Ba ku ko xam kuy defar la ku ko xam koo xamante ne dafa ñëw pusoom bañ ko falee ci sport ba léegi di ñaw. donc problème du ñàkk mais bu problème amee rek dañuy régler situation bi donc je crois que malentendu la woon te comme ni ngeen ko waxee ni dox nañ si jéego mu mandaté ñu man ak sama grand Latif Ndiaye mu nekk conseil communication am ñu dox si am les informations nécessaires ba xam ne jamaïcain moom moom date boobu ñu waxtaan ak ñële tamit ne leen da ngeen jël beneen date parce que ñaari làmb nuñ am si benn stade si benn date donc loolu ñàkk a waxtaan moo amoon rek je crois que lépp lu pour rafetal la lañ nañ rafetal mm-hmm. instant bii nii bu jamaïcain tëggee le 16 ba pare Jax tëgg beneen dat yëpp ministère des sports mun na ko jël parce que moom ku ko xam sport la xam ku ko xam lu bégal waa Fatick te waa Fatick sport bokk na si leen di bégal donc ñu xam ne incompréhension yooyu noonu munta ñàkk mais ñu xam ne intere lamb bi moo nekk pour Jax intérêt lamb ji moo nekk pour jamaïcain parce que ñoom ñëpp seen teraanga def si nekk ak mbër yi si nekk ak collaborateur yëpp donc bu dara amee nañu toog comme ni ngeen ñëwee nii waxtaan ko autour d'une table trouver une solution parce que si lay lamb di ame ndam te lamb bu amee ndam lépp acteur lamb yi dañ si am ndam Matar Ba nag ku ko gis xam ne si jàmm lay dox pacificateur la day jéem a fexe ba promoteur yeeg lutteur yeeg ñëpp ñi nga xamante ne CNG ñu ngi yëngu ñu parler même langage langage boobu nag mooy lan mooy être au aux intérêts à l'intérêt exclusif de la lutte sénégalaise te boo ci nekkee yaakaar naa ne problème bu amee entre deux promoteurs mu nekk loo xam ne malentendu la dox nañ si en tant que collaborateur Matar bi lañ si war a dox ba xam nañ ne jamaïcain moom moom date boobu dinañ ko jàppale date boobu mu réussir ko fii si Fatick Matar ba teew estade bégal jeune Fatick yi ak bépp nit koo xamante ne fans club nga mbala làmb ngay béggee macha allah am na solo kon defe naa jooju wax moom leer nañ jooju wax kolos na kon jàmm gënu ay te defe naa lépp Sénégal la te ku ci ne si ñoom promoteurs yi intérêt làmb moo la tax a jog ministre bi tamit loolu moo tax ñu bàyyi ko fi mais léegi dama am loo xam dama koy laal tuuti ci ministre bi parce que gis nañ fan yi coow yu bëri jóg ay wax parce que tamit faaw ñu laal ko ci ci côté euh, stade yi nga xam ne Sénégal tey dañ ne amatul benn stade boo xam ne maanaam CAF wala FIFA na ko ñu war fa mën a footballer yaa ngi dégg parce que loolu faw ma ñambaas ko ci loolu itam am na ñu bëri ñoo xam ne fan yi ne nañ Matar deful liggéeyam yéen ñi ko jege lu ngeen di wax si loolu merci beaucoup loolu actualité la mais dangay dellu si ginnaaw tuuti parce que séeréer mooy wax comme Fatick lañ nekk wetandoor faak ngir mbaaga jëliñ saatewof da ngay fàttaliku démb pour nga mun a jëriñ sa askan ba muy ñëw nekk ministère de sports en deux mille 2014 Sénégal ay Maroc la doon recevoir fekk stade Léopold Sédar Senghor dafa amoon ay xeex yu fa amoon bañ tëj ko mu ñëw ñu fal ko ministre mu ne Sénégal du accueillirati à l'étranger te bi mu ko waxee ba léegi Sénégal musul fubal benn match bu mu war a recevoir foofu ñu dem si Léopold Sédar Senghor bañ gis ne coopération chinoise nee nañ dinañ ko mun a defar mu ne kat munuñ tëj Léopold Sédar Senghor te ubbiwuñ feneen mu dem si ndimbalu président de la République defal stade Lat ñu fay fubale depuis deux ans fa la ñuy fubale fa la ñu qualifié coupe du monde fa la ñu qualifié coupe donc yaakaar naa loolu lu am solo la pour nit yi xam ko bu ñu kaaf dañuy wax chaque jour nañ yokku biñ fay doog a dem lépp bu ñuy doog a dem la joor amutoon ay chaise yu ñuy toog nii wax nañ ñu ko def nañ ko léegi nee nañ nañ yokk toilettes yi yokk ay pavé ñu ngi koy def mais entre temps nag commission kaaf bi dañoo génne benn not pour wone stade yi ñu homologué mais biñ koy génne fekk na jàpp nañ ne match yi am juin septembre lay am fii ak septembre dina fekk loolu ñu defar ko ba équipe nationale di accueillir la Dior président de la république aussi am vision sportive ba mu demee seetaani coupe du monde gis stade Moscou yi nañ mel mu ne bu mel nii dinaa ko defal waa Sénégal boo rombee jam ñaajo bi ngay ñëw tey booy dellu Dakar tamit dinga rombaat jam ñaajo gis ne am na stade boo xamante ne amul Afrique ñu ngi ko fay defal muy jar euh, cent cinquante cinq milliards bañ leen defalee arène nationale bi gars yi dañoo waxoon ne dafa cher que lamb mérité na lu nekk ñuy defal lii footballeur ñu ne dafa cher ba pare kaaf génne benn not ñuy kaas donc yaakaar naa ne sport loo ci def rek jar na ko parce que Sénégal mérité na stade bu mel noonu sénégalais yëpp xamee ko noonu ne sport ni mu nekk priorité noonu la santé nekk priorité éducation nekk priorité réew bu mel ni Sénégal nag mënoo jël lépp def ko si sport da ngay laal fii laal fii ba lépp sotti mais yaakaar naa ne le 22 euh, février 2022 euh, kenn du waxati problème stade Sénégal parce que Sénégal dina am ay infrastructures yoo xamante ne dina ko permettre sax mu organiser Coupe d'Afrique. kon le 22 la déggee la jam ñaa yooyu pare stade olympique. incha allah stade olympique bi dina pare. te stade Lat Dior bi dinañ defar defar li ñu laaj ñu defar ko foofu dinañ ko def avant le mois de septembre Sénégal mun a accueillir fii qualifié coupe du monde Qatar 2022. foofu ngeen di yem wala di ngeen taxaw tabaxati ne stade. non stade régional yi stade régionaux yi autant pour gis nga ne région yëpp am nañ Kaffrine moo desoon Sédhiou ak Kédougou lancé nañ marché yi ba nit yi gagné ko ba nit yi commencé nañ tabax donc yaakaar naa ne Sénégal fi ak juróomi at dina doon lu ñuy wax un hub sportif. gis ngeen arène nationale gis Dakar Arena stade international stade euh, di Sénégal bi nekk Diamniadio ak arène nationale ak lépp li nga xamante ne day ñëw. donc koo gis nag boo gisee woon dara nga gis benn dang nga siy duut loxo uti leneen xam nañ ne doyul mais dinañ jéem a fexe dolli ba sportif yi ak jeunes sénégalais yi li ñu bëgg ñu defal leen ko parce que président de la république si vision am bu ñuy wax plan Sénégal émergent daf fi nekk pour le capital mais pour ndaw yi pour jigéen yi mais surtout pour sportif yi parce que gis nañ ndam li nga xamante ne Sénégal mu ngi koy am ñu ñaanal doomu Sénégal bi nga xam ne mooy Edouard Mendy qualifié ak Chelsea final Champions League yàlla may ko ndam mu nekk deuxième sénégalais bi gagné Champions League après Sadio Mané. man de ko ko ñaanal waaye daf maa teg lu ma naqari de. Equivox <laughs> ñu ngi leen di nuyu. sama équipe de. sa équipe boobu mooy sama équipe. mais Real mooy sama équipe Maison waaw mais Warde moo ñu xañ dafa nekk équipe bu sant dañoo waroon recruter mais yaakaar naa ne ren dinañ jënd ay Mbappé ak ay Alan ba mun a jëlaat Champions League comme ni ñu ko xame woon te ñu góorgóorlu championnat bi ba bu ñu def année balance. retouru Gaston Mbengue combat yi muy ficelé temps yi mbër yu bëri mu leen euh, jox ay combat noo ko gisee. non loolu nag wax dëgg du ma si mën a wax parce que aw ma si autorisation kilifa gi comme promoteurs yi dañoo nekk te bëri Sénégal yaatu na ku nekk mun na am ay datam te président Macky président Macky loolu la bëgg te gis nañ Matar Ba ba ngeen ñëwee promoteur yi ñëw ne ko dañoo bëgg feneen parce que dates yi dañoo bëri ubbiwaat na Iba Mar Diop. te ah, Iba Mar ubbeeku na fi mu nekk. Matar ubbi na Iba Mar Diop. c'est ko c'est confirmé Iba Mar Diop dina ubbi yenn promoteurs yi mun nañ fa am ay date nga xam ne ñii mun nañ dem arène nationale ñii dem Iba Mar muy tànn sa bu la mais côté promoteur yi nag yéen ñëpp ñu ngi leen di ñaanal ngeen am ndam parce que am say koppar dugaloo ko fenn si xamoo ndax dina sotti mbala du sotti xamoo ndax dina fekk stade ba lii mbala leneen loolu gëkku gëm yàlla rek moo koy def donc di ñaanal Jams production di ñaanal bépp promoteur bépp combat bu bu mu tëdd mu am si ndam parce que bu amee ndam rek lamb ji yëpp am nañ ndam lamb nag dafa am place suñu sport mais dafa am place suñu culture parce que ñii wëy si lañ bopp ñiy tëgg si lañ bopp ñiy jaay caaf ñiy defar t-shirt fans club yi donc lamb industrie la commerce la kenn waru ko fooye di lancer appel fans club yi nga xam ne dañuy ñëw stade yàq gis nañ ne commencé nañ parce que ñoom ñoo ñëw defaraat saisi nañ continuer loolu di ñaan tamit amateurs yi ñu sensibilisation yi te sécurité bi gën a doy parce que ma waxaat leen beneen kii peut-être bii mataa dina ma si créer mais dañuy créer cantonnement gémi fi chinois yi nekkoon 1000 gémi dinañ fa nekk dëkk fa chaque lamb ñoom ñooy indi sécuriser. kon loolu leer na naña ah. kon gars yi defe naa ne jàmm rek moo am solo Sénégal ñoo ko bokk ñun ñëpp promoteurs yi li ñu wax li mu wax rek ñoo bokk ndey ñoo bokk baay ñoom ñëpp benn lañu ministre bi tamit jàmm la bëgg ndax Matar Ba ñun du ñu wax kenn yàlla ngi lay nuyu te gisuñu ko waaye mën nañu seede ci moom nekk nit la bi nga xam ne kilifa la ministre de la république la waaye wax dëgg yàlla nekkul koo xam ne ku jafe gis la wala ku jafee jot te loolu dañ koy soxla si kilifa.